mbokku internet yi maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee sa su ne ak programme mu 5 TV ma ñëwaat ak yéen ci décortique bi ñu leen di defal série famille sénégalaise tey nag mu yemoog épisode 22 bi ñu door ko ak séquence bu njëkk bi Malal Lo ñëw na rek daal di jàmmaarloo ak papaam ngir xamal ko dëgg bi yépp waaye maar nanguwul benn yoon yi rek moom moom moo ko jur ba tax mu daal di koy dàq këram li jaaxal ñëpp nag la amoon ak ami Diop euh, ba tax mënul nangu ni ñoom ñaar am nañu doom muy histoire boo xam ni bu yàgg la waaye histoire boo xam ni bu ko métti la ndax saa bu ko déggee rek day soppi jikko te it xolam du neex ñu jàll ci Batoor moom nag dem na ci Mariatu ngir laaj ko ndax maar dafa am doom ak Ami Diop waaye Mariatu xamal na ko carrément ne ko moom loolu du ci wax ndax bëggul problème waaye puisque Batoor moom fu mu jaxasee Mariatu ak maar rek lay wër dem na ci maar ne ko bañ koo accepté loolu nag indi na problème bu mag a mag ci kër gi ndax ki nga xam ni moo di maar moom bëggul ko waxal secret boobu xaw ma nag lan moo ci nekk si biir ba tax rek histoire boobu bëggul di ko wax wala nag ñu koy sulliwaat ci kër gi batoor nag réussir na ndax tax nag ki nga xam ni moo di maar daal di mere mariyatu ba bëggoon dem daal di koy songi ji waaye batoor comme saa su ne rek moom day màtt di ëf te nag bu waxee ci biir du bëgg rek ki réagir ci saasa ndax du ci bëgg feeñ moo tax rek mu koy doxalee noonu waaye maar dem na nag ngir waxtaan ci ak yaayam yaayam nag xamal na ko ni ko ki nga xam ni moo di batóor li mu wax dara amu ci ndax Mariatu moom du wër benn yoon di yàq sa der waaye maar comme à chaque fois rek moom jàpp na ni ki nga xam ni moo di yaayam bëggul soxna batóor Mariatu la préféré ba tax nag lépp lu ñu wax rek day jëlal défense ki nga xam ni moo di Mariatu mu mel ni kon dina jafe trop pour maar xam dëgg bi ndax maar moom instant yi kenn la jox nopp euh, ki nga xam ni moo di Batoor lu mu ko wax rek noonu la te yéen nag lu mu ko wax rek lay euh, dégg ñu jàll ci beneen séquence Marlo nag gis nañu ni tey euh, mere na torop ki nga xam ni moo di Mariatu waaye mere na itam ki nga xam ni moo di Bigé ndax gannaaw bi nga xamee ni bañ na di jox Mariatu dépense daal dinay dem mbéj ki nga xam ni moo di Bigé dóor bi mu dóor Bigé nag jaaxal na ñëpp ci kër gi ndax bi Bigé juddoo ba tey maar mësul yëkkati loxoom teg ko ci kawam loolu nag tax na rek ñu xam ni kon ki nga xam ni moo di maar soppeeku na ndax biige bokkoon na ci li mu gën a bëgg te bëggul woon kenn laal ko waaye tey ki nga xam ni moo di batóor fexe na rek ba def si xolam loo xam ni su gisee Mariétu ak biige da leen di eh, jéppi eh, waaye nag dootul am si ñoom benn xolu eh, cofeel ki nga xam ni moo di Mariétu nag àll dëfal na ko daal di koy jox dépense ngir mu dem nduggi ji marché mu mel ni kon maar lépp loo xam ni dafa war loo si diggante jëkkër ak jabar moom da ko ko bàyyi si digganteem ak ki nga xam ni moo di Mariatu ñu jàll ci yaayu maar moom naka xamle na ni bu soxna Batoor génnul kër gi moom day génn kër gi ndax mootul supporter rek soxna Batoor di tas njaboot gi te yi nag di indi problème ji kër gi à chaque fois waaye Batoor moom comme ni mu koy defee rek dem na rek fexe ba jouer le jeu ba maar nga xam ni dafa baax xool daal di koy yërëm mu mel ni ci kër gi Batoor rek moom moo fi yorul xol bu baax ndax ñi si des ñëpp seen xol dara nekku ca ndax loo tooñ tooñ euh, boo ñëwee rek daal di wax ak ñoom daal di yërëmtalu ñu daal di lay baal ndax ay nit lañu te it nag dañoo yor ay xol ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni nag kër gi ambiance bi fi amoon changé na completement ndax maar moo ngi daw Mariétou Bigué itam di daw euh, papam euh, mu mel ni kon Bator réussir na ba kere en ci diggante ñi nga xam ni ñoom ñoo gënoon a bëggante ci kër gi loolu nag taxul mu bàyyi benn yoon ndax moom Bator saa xëyee rek moo ngi xool mel ni tànk ñoom ñaar di Mariatu ak Bigue génnuñu kër gi du bàyyi euh, ndax euh, si la ñu jëm ndax maar xamal na ki nga xam ni moo di Mariatu euh, ni ko Bigue su ko baaluwul àq dina ko fase te ñoom ñaar dinañu génn kër gi mu mel ni kon Batoor jege na rek léegi tey mu jege objectif am te maanaam rek séparé ki nga xam ni moo di maar ak jabaram ak doomam nga xam ni ñoom ñoo tax mu daal di dugg ci kër gi ndax ñoom ñoo fexe rek ba maar daal di koy takk ñu jeexal ak sagar sagar nag moo moom bëgg na kut këkut daal di am jëkkër waaye oustaz aadi mi nga xam ni moom moo doon wax ak moom xamal na ko rek ni na gëm boppam ndax nit lépp loo bëgg boo gëmul sa bopp rek doo ko mën a am gëm sa bopp rek moom moo la mën a may lépp loo xam ni bëgg nga ko ci sa àdduna ndax koo gis rek mu am dara dafa gëm boppam daal di koy ñafe ba daal di fay àgg waaye nag dara xëyul rek sotti ndax yàlla moom moom mooy maye waaye nag dañuy naan rek yàlla yàlla bay sa tool euh, kon nit da ngay sabablu su ko defee yàlla mën na caa euh, fekk si kon mbokkente na dinañu leen topp rek ba xam fu wàññeen di mujjee ki gëtam waaye laata boobu nag woye leen di abonné ci 5TV te bu leen fàttee bës ci cloche notification bi ndax ngeen di jot vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf et à très bientôt incha allah